daq nu fee wax gën gënu fee mën a wax magnu fi waruna wax waaye dañoo wax ñoo ndigal soo kon nooy wax rek suñu kàddu bopp bi ñu nooy wax suñu kàddu bopp kon ak mooy la waaye ndigal nag lu mu la digal lu mu la digal ak topp la kon ndigal la ñuy waxee kon nooy wax ni asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ci ndigalal maam Seeraay Faal sëñ Cheikh Jëmb ñu nii toog ak njabootu sëñ Tuubaa gi fi toog ak njabootu Seeraay Faal gépp sëñ Cheikh Jëmb nee na mi ngi siyaare Cheikh Mamadou Bassirou Mbacké ibnu Cheikh Abdou Khadir Mbacke mi jëwriñ sëñ Mountakha yor kàddoom yor kàddu yoonu murid yëpp ak mboolem sant mu àndal ñëpp mu sant Bousso di nuyu itam rakk boppam yi nga xam ne moom ñoo bokk maam Serigne Fall ak yi ak taalibe yi nga ñëpp teew nañ fi mi ngi nuyu ñëpp tey sant ñëpp bu loolu jàllee nag mu ngi jotal ak cant yi ngërëm yu yëm sëñ Mountakha Mbacke Xaadimu Rasuul ndax njëriñ li nga xam ne moom amul looy moom bëggul looy moom muy ndigal ndigalal sëñ Tuubaa mbokk indi ko teg ko ci loxoom boole ko njëbor Serigne Fall gépp loolu bégg nañ ko lool ndax keroog mu déggee ndigal day lim njëkk a def mooy ñaar fukki million la yëkkati yónnee ci sëñ Muntaxa ak kent ni lii ab siyaar la boo xam ne mi ngi koy gàttandoo ndigal li kon kooku ku na xam ne li ñu ko digal dana ko def kuñ digal ab liggéey xam nga liggéey ba nu nu biir sa ba toll nga yóbbu foofu ñaar fukki million ko siyaaree ko gàttandoo ko ndigal la ngir bànneex ko ku na xam ne loolu yow ndigal la neex na la te noonu mu ko defee nag moo jëwar sa faal gépp ko bokk nag altin lañ fi ñëwoon xam naa ne bu waa léegi war naa toll ci fukki fan ak juróom-ñetti mbaa juróom-ñeent ci tey boobaa léegi ci la ñuy xëy di dindi birig yi dindi tax-tax yi di dindi yi fi nekkoon ñëpp te war fee ne tàmbali yu mool ak liggéey bi di seenu ndigal li gi bànneexoo ba tey jii mboolem ku mbokkal maam Cheikh Fall ngay rakam moo ñooy rek desey ay rek desey yi ak i doom ak i taalibe ak ñu seen Tuubaa Cheikh Fall seexaloon seen i maam maam seexal seen i baay kenn manqué wut boobaa léegi gis nga barab bi ñu ko dalee ni ñu daa def xel kom ba kaliyaar nañ ko def kenn ku ne dal nga def dal boo xam ne fas nga yéene ni sañ bëgg day mel ne yow dong yaa ko fas yéene def génn ka desul nag mboolem ku serafal meñ sa bàyyi mbaa mañ sa xeloon sa bàyyi teew nga fi dal nga fi fas nga yéene def la Sëriñ Tuubaa bëgg andi ko jaar ko serafal kon si Seex Jëmb nee na mi ngi sant ñëpp tey gërëm ñëpp te ñaanal ñëpp itam nag lii Sëriñ Tuubaa bëgg ba digal lu ko nag li ñu jekku li ñu wax jekku ndigal yàlla na jekku ndigal lii tàmbali ko ci bismillaahi rahmaani rahiim wax ji alhamdulillaahi rabbil aalamiin mu sedd guyi te am bañ a men ndog te moom mii ko tàmbali ak ki ko digal nañ fekk lépp mu ak ak jàmm ñun ñi ko digal tam mu ko wéral nu kàttal na nu ba ni mu ko bëggee nu mane ko ni jëfe ko nu kawe seen jot ba dàq seen i ngërëm yàlla na ci am ngërëmal sëñ Tuubaa am ci ngërëmal seeraay Fall barab bii bara jotaay bi jotaay bi fi teew tey mbooloo mi ku ne gis na ko yaakaar naa mbooloo daana fi dajee moo xam ne bu tawul bu tawul nit dana dana dana jege mii waaye mbooloo yi bokkuñu nag mbooloo mën naa daje ak mii bokkuñu tey kon na xam ne ma fa daa daje day mii daje daje bi mu gën boobu daje ndax daje sëñ Tuubaa yi mu du dara te li daje daje sëñ Tuubaa la kon noo ñaan sa borom nag la fi nekkoon lépp bi mu dàqoo ba dem na fi sëñ Tuubaa indi xéewal ak jàmm te daj àdduna jëpp ak wér ba la sëñ Tuubaa bëggati nu man ko te jëfe ko ndax loolu rek mën mën a fi bàyyi kon nag sëñ Cheikh Jëmb nee na mu ngi sant ñëpp di gërëm ñépp te soñ ñëpp nag ci liggéey bii tàmm nañ ko tey jii la lañ bëgg te xeer yi waaye fas ko yéene ànd ak ku yaakaar seen Tuubaa mbaa yaakaar seen Ibrahima Fall mbaa ko jullit ne mbaa ko bëgg lu baax woo na ci ñëpp nag ndigale nag li koy li koy li tax am nag mooy jëf waaye wax du ci may kenn dara ñoom lay xeeñ te lekkoo je boo xiifee xiif dana la gaañ da ngay moo lay jëriñ waaye waaye xeeju xetu kese ñoom du jëriñ kenn dara kon liggéey bii jëf ji moo na fiy jëriñ bu kenn xeeb sa dërëm mbaa nga xeeb sa ñaar mbaa mbaa sa korante gerte mbaa sa sa suukar mbaa sa téeméer mbaa fukki dërëm bu ko xeeb bu kenn xeeb loxo bu ne rek na borom te sëñ Tuubaa lu ñu bëgg lu ne am na ko waaye duñ ci may dara dañ ko jaay rek li mu koy jaay nag mooy bëggam gi defal ko suñ defee bëggam gi rek sans de suñ sans borom de suñ te bëgg sëñ Tuubaa nag moo na fi bàyyi leneen bàyyeetuñu fi sëñ Tuubaa dégg naa dong ci suba rek si tëj rajo bi xam nga ko waaye woon rajo national tey wax nañ sëñ Fallou Mbacké kàddu yi mu waxoon ci diggam ak sëñ Tuubaa yi mu leen waxoon ci Jolof moom ak sëñ Moussa Mbacké ak sëñ Moroxi Bousso ak sëñ kaddu yooyu ku ne dégg na ko tey ci suba groupe bi rek fi ne ak taalibe bi nag mooy ak murid ak murid nag mooy yar ak teggin ak jub di wéy ci ndigal di bàyyi tere kon nan fa seen tënku ci li muy digle di da nga mooy li rek noo ngi ci nekkee nag xéwal yëpp dana wàcc ci ne boo xoolee bi ñu ñëwee léegi yaakaar naa buñ ko seetloo kenn ku ne li la fekk ci xéwal ak li fi indi ci xéwal xaw bàyyi ko ñi ñëw xamul nit ñi li ñu indi fu ñu ko jëlee ñi fi nekk xamul li ñuy fekk fu mu bàyyi ko dara maa ngi dara maa ngi dara dara dara mboolem ku yaakaar Serigne Fall nga def si yàq mbaa ngi sa jëf tàbbi biir liggéey bi Cheikh yëpp nag kenn desul nag ñii indi fi ay tonne ciment ñii indi fi ay limi xaalis ñii indi fi yéene àggale liggéey bi ñoom dong waaye kenn man kenn manqué rek kon suñu baa ngi ñaan sama borom mi nga xam ne moo joxe ndigal li Serigne Touba mu jox ko Serigne Fall mu dimbali ci kàttanu poos ak kàttanu yaram ba ni ko sëñ Tuubaa bëgg na defe ko ne sëñ baa ngi sant ñëpp tey gërëm ñëpp waaw wasalaamaaleykum wa rahmatulaahi taala wa barakaatu ndigal laa ngoog da ngeen di abonné a ngir mën a xam nga xam